ñi bu ñu dajee dañoo war a daje. Alaaji Malick. ay loolu mu doon lu rëy loo xamante ni nii bu soobee yàlla bis la bis bu mag la waaye li ma la ko waxee rek dafa am noo xamante ni képp ku bëgg a seetaan télévision seetaan lamb ji dafa am nooy def ba seetaan ko dama bëgg nga joxal ma Ibrahima pay-per-view bi mu wax nu Bonjour képp koo xamante ne fan sa Lac de Guiers nga nuyu Père Bécaye. Eh, eh eh xam nga lan la eh déglu leen ma wax leen déglu leen ma wax dama leen di wax benn affaire yéen ku ci nekk am nga koo àndal bu kii yuuxoo kii kii yuuxoo kii coow day bari rek. waa Père Bécaye maa ngi leen di nuyu. Euh, di nuyu suñu papa yi fi toog di leen jégalu ci heure bi nga xamante ne moo fi nekk waaw c'est normal nii la sport la ay faut ñu bàyyi leen ñu yuuxu ndax lii mooy neexal làmb du nuyu mbër yi fi teew yëpp sama rakk yi fi nekk ñëpp maa ngi ziar ñëpp di leen yàlla yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla yàlla def ay champion yu mag fi ñu toll yàlla def yi ngeen dem ba robb fa ci barke Seydina Mohamed yéen ñëpp laa bëgg. waaw di ziar tamit fan su Boy Niang yi di fa ziar tamit ñi nga xam ne moom mooy waa fan sa la déggee numéro 2 yi maa ngeen di bëggee di nuyu sama adversaire Boy Niang di ñaanal Lions yi dañ leen ñaanal surtout lion yi ah. dëgg la parce que ñun ñëpp ay doomu sénégalais lañ. waaw mooy li may faral di wax dañ leen tàppee xol yi. bu ñu tàppee xol yi dañu am lu ñu bëgg. dañuy am ndam muy ci côté joueur yeeg. ci côté ñi nga xamante ñooy ut yeneen côté yi. waaw waaw ñëpp boole xol waa ci wàllu yëpp. na ñëpp boole yëpp ñu ñaanal sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñooy jangonte ji ah. suba incha allah bu neexee yàlla yàlla may leen ndam lu rëy rëy ci barke Seydina Mohamed amiin du nuyu ñëpp nag du nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn waaw du nuyu sama adversaire booy ñëw noo ko gisee waaw il est en forme macha ah. allah koy wax parce que tamit bon dañoo war a ah. la maag moom ñu war ko bëri la ndaanaan bu war a dajeeg ndaanaan la. waaw incha allah bu li ko jiitu ci làmb ndax dina compter. ndax am li ma ko jiitu ci làmb dina compter. Ah. affaire c'est question de li ma ko jiitu ci làmb mooy compter. yaa ngi dégg bu fekkoon li ma ko magee sax dafa bëri ñu mën a wax. Hmm. mais li ma ko magee bariwul ah mais nag dinaa la wax benn affaire. ah Boy Niang moom xam na bu baax ku muy dajal. <laughs> moom xam na ku muy dajal. Ah? xam nga man ku may wax ñaa ñi may yab ñii ñoo ma yab ñii ñii nii yéen yéen a ma yab. mais buñ duggee ci la mu ñu ma ak moom <laughs> ah dina neex de. Eh! voilà Boy Niang dégg nga lakk li mu wax yooyu ñu bàyyi la nga nuyu réew mi waaw asalaamaaleykum ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant suñu ay ñaari waajur di nuyu waa kër Cheikh Sadou Abi ñu ngi nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi di nuyu waa kër Cheikh na wul du maam ni yëpp di nuyu waa kër Cheikhu Cheikh na Cheikh Sadou bi di nuyu waa Pikine bi ma jugee di nuyu ñu may seetaan di ñuy sama fans yi di nuyu plateau bi yëpp di ko rafet bu baax di nuyu champion yi toog parce que ñun fi la ñu jugee ba ñëw fii maa ngi nuyu champion yëpp di nuy adversaire bi di nuyu waa Pikine ak waa Rebeuss yi ma àndal ñu ñëw supporté ma père comme nu nga koy waxee rek adversaire bi xam naa ko ñu ngi jëm ci bis soreetul ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu ndam incha allah ci barke Cheikh sa Sadou. Alaaji Malick ndax yaakaar nga ni combat bi war naa am xeex de. HBK yi combat bi xeex mënu cee ñàkk. ah. ñaar ñii foog ñu xeex. foog ñu xeex. mënta ñàkk. lak foog ñu xeex. combat bi ah. Bécaye làmb ji kay yi bu ñu fi ñëwee kay ñëpp ku ñëw seetaan si làmb ji da bëgg mu am xeex bu neex da bëgg mu am xeex bu saf sap bu saf moom xam na xeex sax bu ma ko waxul sax. booy ñaa ma maa ngi jaaree sama papa moo faram. eh eh yéen damaa bëgg ngeen déglu ah bu leen ma fontoo. maa ngi jaaree suñu papa eh, suñu kilifa eh seen morom. maa ngi maa ngi jaaree suñu papa. waaw moo faram waaw. maa ngi jaare waa Géeja waaye di jaare njabootam yépp mi ngi ñu fekk ci combat sax mais sinon dañuy ñëw ba foofu jaare si ko dëgg la ñu koy jaale bu baax combat bi dina am xeex dina am bëre day dépendre ci adversaire bi rek combat bi ñëpp ñu ngi koy xaar te combat bu neex la suñu frère tëgg ko muy Baye Ndiaye bu jour ba dañoo war a ñëw def fulaak fayda ak jom rek maa ngi moom incha xeex bi dina arrangé baax na ci yow non man xale laa lépp arrangé na ma man ak moom ñu seggee dara bu bàyyi du ma bàyyi xam nga HBK yi li tax man la ñaar ñi mënuñu bañ a xeex kii dañ ko dàkkantale le puncheur du ndax xeex bu nga xam ne da ko samp ci làmb ji ba ñëpp ràññee ko ci kii tey bu nekkul woon mbëru làmb boxeur lay doon parce que boxe la njëkk a def moo tax man la ñoom ñaar mënuñoo bañ a xeex ndax xeex bi moom mooy ubbi làmb ji seen diggante ñoom ñaar lak damaa gis su combat yi nga bëree est-ce que mës ngaa bëre boo mag comme ni nga magee Boy Niang ni nga ko magee ni nga ko jiitoo ci làmb bi ngay ñëw ci làmb ñu ngi wax xeex mais du man li ma gënoon a seetlu mooy Lac da daan xeex mais après mu bàyyi ko li bëri parce que dafa mel ni day naxaat dafa gëj a punch waa biir nga booy xool man bëri naa ak samay mag. Ah. bëri naa ak samay morom. je crois que bëri. s'il vous plaît tëgg mi waay eh, yi eh, eh, bu ngeen bëggee mu man gënu leen maa doonub géwël maa leen dàq tëgg foofu damaa bëgg ngeen ni réglé waaw. ayca nag. je crois que Père Bécaye. waaw naa ci gàttal rek defe naa bëri naa ak samay morom. waaw bëri ak samay mag. waaw samay rakk defe naa laa bëreegul ah. ah. waaw loolu loolu laa bëgg nga wax ma ci bëri ku la gën a nekk xale. ah ku la gën a nekk xale. ok gën a nekk xale. moom dama ko jëkk a bëri rek loolu rek la. mais magoo ah waaye. Père Bécaye kii <laughs> kii ku xool jaalam bi ku xool jaalam bii laa la wax de moom xam na baax la ma ko wax ku xool jaalam bi nekk ci gémmiñam gi li na nëbban ñu dóor ko ah xam nga ne du xale waaye gars yi dañoo rek. waaw loo loo bëgg ci jaal bi da nga ko bëgg a yokk. kan jaal bi non jaal bi kenn du ko yokk dañuy bëri daan rek incha allah bu neexee yàlla suñu borom. booy ñaan. su ma fàttalikoo su ma fàttalikoo Lac de Guiers ba muy nekk ci làmb ba ñu xam ko ñu naan Lac de Guiers numéro 2 su ma fàttalikoo boobu mi ngi ma fekk lii ta caaro yi maa ngi jàng waaw kon moo ma mag ci làmb moo ma jiitu loolu mu nangu ko ak mu bañ ko ñëpp xam na ni moo ma mag ci làmb moo ma jiitu waaye nag dañoo nekk ay xale. liggéey def fulla ak fayda ak jom ba mu egg si ci moom te ci loolu la ñuy continuer dama koy wax chaque jour te loolu sama ambition personnelle la làmb moo ñu boole ñu war a bëre waaye yàlla xam na ni sama ambition personnelle du pour kii bilaay walaay te li may wax dëgg la ci man. mais non xam nga lan moo ma jaaxal kii dafa daan roi des arènes ba pare nga ne sa ambition du loolu mooy lan. mën na. eh, eh, eh! léegi gis nga booy eh eh eh waaye jàpp leen ci waay ayca booy ñaa père waaw mën na daan ñëpp mën na daan ñëpp mais li ma lay wax sama ambition personnelle la waaw sama bët fu ma ko teg du bël kii foo ko teg waaw loolu da suñu borom nañu may tar ak fekk ay xale lañu dafa gun dara ci làmb ay tout tànk lañu waaye suñu ambition personnelle du pour Lac de Guiers. yàlla kii dafa bokk ci ñu dàq bëri ci làmb. waaw loolu moom la ay bagages bu boppam la mais man laa la wax sama ambition personnelle du pour kii. Lac moom lu tax mu bëgg laa jéggi. et li ma ci jaaxal dafa dugg Guédiawaye ku fa bëreel daan dal ci yow. et gars yi déglu leen waaye. ba bëgg a jéggi te dafa dugg way am lu mu fa def. Albert Becaye nag yéen tam bàyyi leen ni kii dafa bëgg jéggi. kii ci moom la wax moom la wax. ci kàttanu yàlla du jéggi moom xam ne du jéggi du jéggi dañuy wax ni la waaye du jéggi. booy ñaa ci kàttanu yàlla la wax de. fan bu fekkee yàlla li may dindiw ko. waaw ci kàttanu yàlla du bouge mais fan fan nga ko teg. déggoo lu ma la man lépp lu may wax du ma du ma wax ci ginnaaw yàlla. fan nga teg loolu yàlla yow doo jéggi yow. ba jour ba incha allah bu ba di nga xam ba xam damay dem wala du ma dem incha allah. ca kàttu na yàlla doo buuse met. ok ba bu nekk am nga ko. alors dama ni Lac de bi ñu jaaree léegi ci sa palmarès adversaire bu nekk am nga ko mais est-ce que am nga conscience que ne adversaire bu technique. adversaire bu tactique adversaire bu naqaree bëreel ngay bëreel. waaw Père Thiandoum kii dama ko yàgg saan du léegi laa ko saan de déggu lu ma la dama ne la premier combat ba dernier combat barki Serigne Babacar Sy xam naa nu muy bëree lépp rek un peu de respect waaye un peu de respect nañ leen bàyyi saaga yi un peu de respect maa ngi jégalu. am na qualité yu mu la mën a jégee dem yoonam comme ni ko père Bekaay waxee. mbër bu nekk bu jëlee sa avance ak am na qualité bu mu la daanee mais déggul ma la qualité bu mu mënti am damay dajale lépp fatt ko kii du am dara ci kàttanu yàlla. doo ko may dara. booy ñëw déggul ma du am dara. booy ñëw adversaire bu nekk am nga ko mais adversaire bu gën a naqaree bëreel ci làmb ji ñëpp nee nañu moom nga am parce que amagul mbër bu ko daan ba toog ci kaw est-ce que conscient nga ci loolu waaw père xam nga man dafa am loo xam ne dama ko bëgg ci combat te yàlla dafa def dama ko gis ci combat bi man dama nekk xale waaye dama bëgg dama bëgg combat yoo xam ne dañuy wax Boy ñaa mënul def lii wala Boy Niang mënalul kii dara wala Boy Niang ki muy bëreel moo gën a nakkaree bëreel wala Boy Niang am na client dama bëgg loolu ci combat parce que day tax ma liggéey def fulaak fayda ak jom te foofu laa jóge ba yegg fii nii te loolu dama ko dégg ci combat bi dégg naa ni gars yi il gànna gànna per gànna per gànna per gànna pour mu neex yaa ngi dégg bàyyi gaa yi tëgg mais il faut ñu tëgloon te dégg nga bàyyi gaa yi ñu tëgg garaaw yaa ngi dégg ok yaa ngi dégg gaa yi eh gaa yi affaire bi du concours tëgg waaye eh, gaa yi ñu ñu waxtaan tuuti kàddu géwël géwël géwël géwél daawul yàq père Gamé géwél moo daan defar père Bégaay géwél yi yëpp lañ faral dañu kii géwél yi daawuñu yàq géwél moo daan defar ca démb ba tey géwél lay defar bu leen yàq ay ci yaa ngi dégg père waaw booy fi nga nekkoon neex na lool continuel waxtaan bi waaw damaa bëgg ci piis loo xamante ni le fait ñu ne Boy mënul lii wala Boy Niang xanaa dafa dof lu muy wut ci lii loolu day tax ma liggéey def fulaak fayda ak jom boo xoolee sama combat yëpp noonu la demee ba ma yegg si fii kii nag adversaire la damaa dégg ñu ne kenn daanagu ko maa ngi nuyu sama mag Eumeu seen daan na ko mais nee daanaguñ ko jël bu leer. non Eumeu Sène daan na ko. na ko champion maa ngi koy nuyu sama mag. mais damaa bëgg incha allah. le treize man ak moom bu ñu bëree ba pare ñu xam ni boo ñaar champion dëgg la incha allah rabi. loolu daal nga bëgg def biir géej moom bëgg incha allah. est-ce que li nga daan liggéeyee ci yeneen combat yi nga liggéeyee wala bii dafa am préparation assez spécifique ndax dayoo bi combat bi am ci yow. su la naxul su ma la waxee dëgg yàlla xam na ni li ma liggéeyee ci bis bi mosuma ko liggéeyee su ma la waxee dëgg incha allah parce que loolu nag bëgg bis bi rek moo ko waral xam nga wax ci dafa neex si supporters yi foofu ñu wax waaye dafa neex la fait que bis bi man a kii rek ñooy ne ci géew incha allah. ñu ne ñu ne pourquoi Japon. waaw non Japon dañoo bëggoon xooli rek ay xale lañu boo déggee xale da ngay dem xooli rek yokk sa expérience ay xale lañu demoon Japon yokk suñu expérience mais liggéey bi def nañ ko ñëw yeggali fi mu nii wax amatul daal dañ def fulaak fayda ak jom parce que ñëpp ñuy déglu incha allah. boo ñëwee dama dégg nga ni da nga yor sa booli fonde waa géej waaye ku ñëw di ko yàqal te yàq bi day dem kër la dëggee. non père waxuma loolu <laughs> waxuma loolu. loo wax si waa géej waaye nag. géey waaye amul lu may wax ci ñoom làmb moo ma boole ak ñoom comme li may wax du ma changé communication ci loolu làmb moo ma boole ak ñoom samay adversaire nekk foofu ñu ñëpp ay frère la ñoo bokk ndey ak baay su ma bëree ñoom ba pare jeex na comme ni ma koy waxee bu jeexee jeex na làmb moo ñu boole man ak Lac de Guiers numéro 2 ñu bëree def fula ak fayda ak jom bu jeexee ñu ñu dem xool leneen mais géey waaye amuñu benn problème ak ñoom alors Lac de Guiers est-ce que am na aussi préparation bu spécifique boo def jëmale ko ci combat bi ndax Boy Niang dangereux gu mu dangereux ci yow. waaw xam nga làmb ak mbër mu nekk ni ngay préparé mbër mi di ko mën a la combat bi bokk na ci komba bi ma gën a fonk combat bii nii ci combat bu ma gën a fonk. lu ko waral. parce que loolu duñ ko mën a wax fii mais après combat bi dinaa la wax lan moo tax ma ne fonk combat bi. Euh, Euh, Père Thiandoum lamb bi combat bi ci la nga xamee la déggee numéro de ci combat bi yàlla incha allah bu neexee yàlla. mais combat dama ci liggéey man. man lan lan non euh, particularité bi am ci loolu la xaar bëgg a xam. ma ñëw xaaral ma ñëw ah. wax la. Ah. combat bi dama ko prépare ay coach wër ma entraînement ci plan yëpp barki yonent bi dama ci entre na ba feebar. waaye bi moo ko mais nag am na loo xamante ne duñ ko wax mu jëm kaw mais gis nga combat bii nii ku yaakaar ne dama ci nelaw benn centimètre benn centimètre wala moom dafa yaakaar dinaa ko ca may benn lu ndaw mu ngi nax boppam. waaye ñaar. combat bi laa gën a fonk laa la sama carrière. waaw combat yi nga sa am yëpp. déggul ma combat yi ma am yëpp. combat bi laa gën a fonk. dama bëgg ay nitam xam loolu na combat bi dama ko jël au cœur. ñooñu yàlla koy xam man maa ko war a xam. samay nit waruñu koo xam man maa ko war a xam man ngay bëreel père Béga yaa may dégg gars yi tàmm nañ communication bi ci Lac de Guiers bi sama bakkan laa ci teg combat bi sama combat la entraîné naa ba sonn yanu na ay poto lamp ak lépp mais affaire yi loolu dafa war a def fulaak fayda ma def fulaak fayda ñu bëre xeex incha allahu rabi ñu ngi ñaar suñu bon defal ñu ndam ci barke Cheikh Nassar Sadou incha allah. alors yéen ñaar dañ leen di xaar ci loolu nga wax Boy Niang. mais Malick parce que ñu bëri. lamb ji bëri na mystique de. waaw bëri na mystique ah bagage bëri na mais bagaay ñu bëri dañuy wax ne la de dafa défensif Boy Niang dafa tactique ñu bëri xalaat ni combat bi day bëri ay dam yeeg ay yu noonu. est-ce que tey explosivité bi ñu yaakaar dinañ ko gis ci yéen wala boo calcul boobu la fi nit ñi di toog ngeen di benn bennal. di dam yee ku ne di xaar sa morom nax la. combat bi bañ a combat explosif ci jour boobu est-ce que mën ngeen ñu promettre loolu. waaw combat bi bañ a yàgg bari xeex neex ku nekk li nga wax ci signature bi boo ñëwee nga def. offensif ay ci waa mooy yoon sax parce que boo xoolee ci signature bi ak communication bi da ngay gis ni Lac de dafa guuxal Boy ñaar da ngay gis ni Boy Niang dafa guuxal Lac de kon ci jour ba moom dañ kon ngeen mu nekk ci ginnaawam. par rapport ak yi ma seetaan gis naa ne ñëpp ñu ngi ci ginnaawam xanaa waruñu ko ëmb nag jour ba muy ñëw di di def gauche droite dafa war a ñëw rek ñu dëggal suñu bopp def flag fire incha allah ngeen daje. incha allah looy tontu ci loolu looy tontu ci loolu. Lat <laughs> looy mel ni ku commencé mer bi. mbokk yi ñu réalisateur mu am analyse boo xamante ni moom la ñuy defal. aan yaay sama yaa ndigaan yaay jigi joor na eey ma dana mu naa la baa yaale jaay ma ñu duppee maamam way kaay leen ah mbokk yi mooy am le treize yéen ñaar joxante leen loxo ba acca njaay lay sëy baay ale njaay ale maa jigéen ay baayam ali maa jigéen eh, ali sama roon jaay malamin faati bakar la seen baay tudd malamin faati bakar am na seen baay